yes yes okay okay Donald Trump Donald Trump yes ok jërëjëf waxtaan bi du am solo dina am solo because Hillary Clinton jëkkëram ñam na benn mandat ñama tout mandat amul njariñ président yu musa jaar États-Unis basam moo a lewet ci la ñu yàpp États-Unis ci la inca ci la musulman muslim yi dugg États-Unis juma mosquée black yi dugg because président Bill Clinton is a very yambar jabaram soxnaam dañuy wax ci tout grand homme am na jigéen bu nekk ci ginnaawam waaye du bii du bii ma koy laaj pour mu tontu bi ñu def ñaari mandat fan la États-Unis dellu dollar bi wàcc na sorry sorry sorry <laughs> ok ok ok ok américain américain étranger tout le monde nuyu naa leen Hillary Clinton yaayu ñëpp boot ñëpp ànd ak ñëpp parce que Amérique loolu la xam Donald Trump, Donald Trump, he talked too much. Donald Trump, stop talking. Wala waxal lu nit Donald Trump, Donald ca kaw Donald, Donald jigéen bu yambar jëkkëram yambar. États-Unis du ànd jëkkër bu yàmbaar jigéen bu yàmbaar dëkk bu yàmbaar no is not <coughs> ngeen baal ma soj la États-Unis américain na musuñu yëpp ci àddina même film yi ngeen di seetaan dañuy ne États-Unis ay jàmbaar nañu Larry Clinton talul jëkkëram bëgg tal États-Unis mënul nekk because I don't know yes yes parce que nit ku ñuul jiite na États-Unis ne jigéen moo koy jiite du Monica jigéen bi yëngaloon palais bi Maison Blanche la doon wujjal ci palais bi te yàgg munoo ko maîtriser bëgg maîtriser États-Unis naaw I don't know sa borom kër rasatu kat bu mag la labat kat bu mag la ci yéen la dollar bi wàccee ci yéen la ñu yebee États-Unis hey ah non. Monica Monica sama xëy xaju ci moom ba ma ko jugalee dafa génn Maison Blanche ndax man man maay Hillary Clinton. li may lijjanti dama koy lijjanti ci biir ci suuf ndax nag déggoon naa sama xaritu sénégalais yi di wax naan bañ weex na waaye deret moo ko lal mhm. c'est pas parce que da reetaan rek que li ci suuf yëpp doo ko régler laajal Monica dama koo régler ba mu ne kuruj ne karaj te dara yëngatawul léegi nag américain original américain baay américain ndaay américain ma wax leen ne Amérique dina delluwaat ci cosaanam yéen ñi nga xam ne yéen ñu rax sénégalais africain west africa yéen fi indi ay jàng guddi ajuma ay guddi ajuma ay ban bés yoo xam ne yàq suñu dëkk bi salon de coiffure yi bomb yi coow yi ngeen bi duggante yooyu yëpp dafa jeex ci biti l'Amérique aux Américains baay américain nday américain juróomi maam américain sénégalais yi africains yi rax nañu yéen ñëpp ci biti jullit yi l'Amérique aux Américains yes Donald Donald Donald Trump yes Hillary Clinton Maison Blanche te nag te maa ngi leen di wax immigré yi hispanique on va danser oui on va faire de de, de nouvelles tubes waaw dañuy génnee tubes yu bees te biir biir biir maison blanche dañ koy defee génnee tube hispanique génnee pas de basse oui bien ñuy wax Barack Obama di ko jàppale bi mu ko commencé jàppale ba tey ngeen gis ne euh, États-Unis dañu ñu yëpp suñu dollar bi dafa daanu Europe ci boppa mu ngi dewanse naar yaa ñuy dewanse yambar fanaano ha hay hay habama habama habama bul tax ma wax hmm. Donald Trump Donald Trump arrête de tromper Donald Trump trompe sa femme trompe lu mu def jabaru Donald Trump lu dul jël discours jabaru Obama di ko wax ñii xam ngeen ne amuñu dara kuy sàcc amoo dara ndax ku am da ngay génnee teg ma ne leen maa ngi nii Maison Blanche laa jëm toog naa fa 10 ans dama fay delluwaat ndax nag Maison Blanche namm na ma te nag sama sama sama waay yi immigré yi surtout nag sénégalaise tresseuse. Mm -hmm. beautiful tresse beautiful tresse magnifique tresse. elle gauche maison blanche laa leen fay tegal because me j'adore beautiful j'adore les tresses. d'ailleurs j'ai déjà commencé à faire les tresses je dis damay boot damay damay ouf parce que là. C'est ça l'Amérique. L'Amérique, c'est tout le monde. C'est un peuple d'immigrés. Au Clinton say bye-bye. Clinton love you. Hillary Clinton say ciao, bye-bye. Kouthia Trump ak euh, Mariam Clinton ñoom ñaar kan mooy dem Maison Blanche xamaguñu de toute façon désormais chaque samedi Kouthia ak euh, Mariam ñoom dinañ def seen meeting comme sa ñun tamit ñu dund ko euh, comme ni ko ñëpp yi dundee et puis lépp lu xew ci dëkk yëpp ñoom ñaar dinañ ñu ci am ñu ci may tuuti donc Kouthia Trump la ak Mariam Clinton monsieur le ministre maître Alioune Badara Cissé nekkoon nga ministre des affaires étrangères defe naa tey jii boo déggee discours Donald ñi nga xam ne ñoo soqeekoo Sénégal ak ñeneen ak ñeneen ay discours am la ñu gën a ragal ah. Euh, j'ai eu le bonheur de d'accueillir à Dakar en 2012 euh, Soxna Hillary Clinton. Mhm. mu nekkoon ministre des affaires étrangères bu Amérique. dégg naa ku baax la. mu nekk ak moom ñaari fan. Mhm. fekkaat ko New York vers la fin du mois de septembre. Mhm. Euh, jàpp naa ne Amérique pour la première fois. au parti démocratique am soxna soo xam ne investir nañ ko. mu commencé am position bu am solo ci sondage mhm. Amérique nag démocratie la mhm. amul góor amul jigéen amul ku xonq amul ku ñuul mhm. képp koo xam ni askan bi yow la gën a wóolu rek yow la ñu jox seeni carte mais kontaan naa ci Kouthia gis ko mu dellusi ci kër gi <laughs> parce que bi mbir mi amee waxtaan naa ci ak moom lu yàgg waxtaan ci ak Youssou lu yàgg ak ñeneen xam naa ci biir réew mi. kon yëf yi yeggoon na médiateur de la ah, <laughs> euh, maa ngi Fouta maa ngi <laughs> gis nga Kouthia. Mhm. He's an outstanding comedian. Uh-huh. It is my belief that we owe him an awful lot. He participates in a wide range of what is making us a democratic country. He plays a major role. Kouthia deserves our due respect. We have to pay him tribute and not wait until one day comes, as we will all, it will all happen to all of us, that he's gone for us to sit down and say we've lost a major citizen. Kucha, I'm glad you're back and never quit again. <laughs> Mm-hmm. Merci en tout cas.